ay waay féexal sa xol ah original neexal bu te original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture mu ci gën gaaw jëfandi transfert local la ñun ñoo ko moom di ci soñ ñu Sénégal yëpp ñu consommer ko Allah bu baax a baax borom le Uh-huh. lan demee tam xarit nee naa Fallou Ndiaye moom pour man <laughs> tëj na saison bi ndeket dana boroxluwaat rek <laughs> wala bi ñu ngi lay fay di am mbégte nga dalal ñu tey ci plateau bi vraiment di ci am contentement bu baax di la nuyu di nuyu Père Pala comme ni ko jiyee waxee rek Père Pala moom suñu père la nit ku baax la et puis nit la koo xamante ni moom luy defar lamb rek ci lay dox sax suuf ci lay wax lu rafet kon nañ koy sant di ko gërëm di ko ziar di ko jox wàccuwaayam bu baax di nuyu tamit Dieye mm-hmm. moom suñu mag la mm-hmm. suñu lépp la wax dëgg yàlla dañu taxaw ci lu bari per pa sax mu lay tooñ naan la combat bi neexut waaye combat bi moo ko taxawal bi naan la neexut moom moo ko taxawal. <laughs> kon jeex na. di ko nuyu baax ko jox wàcc waayam di nuyu mbokk internet yi nga xam ne ñu ngi suivre fii nga xam ne di nuyu boom kër gi Buzz di nuyu tamit comme suñu mbokk bool bool yëpp. Hmm. ndax nag ñun moom mënuñoo dem sans bool. Mm-hmm. te lépp lu ñu am bool moo ñu ko gënal <coughs> kon képp kuy doomu bool dañ leen nuyu jël nuyam teg ko ci loxo ba dajoon rek suñu grand nga xam ne suñu xarit la suñu wóolale la mm-hmm. di nuyu tamit équipe bu Njaay production bi yëpp mm-hmm. jël nuyu bi teg ko ko ñëpp di nuyu tamit comme ni ko jee waxee rek suñu jarbaat Abdou Sène nga xam ne ah, sama rakki bopp la sama jarbaat la sëñ Fallou nga xam ne sëñ Fallou moom nee na ci àdduna maa ak jéeg a sonal maa ngi koy nuyu baax di ko ziar di ko jox wàcc waayam di nuyu vraiment monde laaj yëpp daal di am mbégte tamit tey pour ngeen dalal ñu fii. Mhm. Bawol sans frontière. waaw Bawol sans frontière Bawol moom xam nga Bawol boo jógee Bawol ñëw Dakar moom àll bi yaatu na. waaw mm. moo tax ñu def Bawol sans frontière. fépp doon Bawol ndàngal ma ba fan. non Touba Bawol na. per ba. non ba Thiès. Thiès mooy mooy frontière bi. Thiès ca Kajoor la bokk. waaw non mooy frontière bi. mais moom frontière la la xam nga Thiès ak Bawol ñoo frontière waaw waaw jàpp jàpp ndulo. <laughs> waaw nangal mag laa ñaar ak sew. waaw ci xombal. jëm ci xombal. ak kulub njaga ñaaw. waaw bawol yaatu. gannaaw njaga ñaaw ci bawol la ko leer ter ñaga ñaaw bokk ci bawol de. Ah, am na bu bokk am na côté bu bokkul ci bawol. lu ma wax nga teggi côté fële rek. ter ter demewul noonu. waaw ah, baax na ter daa mel ni miin réew mi nag. non miin na ko ndax dafay ñëw. ah, ah dama koy fan la ñëw ku day ñëw kulub bu baax. kulub. dëkk jéey. waaw waaw. Hmm. dama fay dem. yow fan ak fan ak fan nga ci réew mi. naa ni wër naa Sénégal dem nga fa Tamba de. Tamba day daal tuuti na. ba Bakel. si nga limi. Hmm. ca montagne ya dem naa. mais Lamine. waaw si biir loolu maa ngi nuyu waa bu baax. Hmm. Kulub waaw waaw di nuyu waa sama dëkk. macha allah bi ma juddoo. di nuyu hmm. waa Mbampana. waaye nag di nuyu ñenn ci eh, eh, ñenn ci ñun. muy waat Gét Ardo. waa maa ngi leen di nuyu bu baax. waaw xam naa ko di jox seen wàccuwaay. di leen jaajëfal di leen sant te di leen gërëm. di nuyu sama yaay sama waajur Mayka mère ka maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax di nuyu Marie Ndion suñu jigéen suñu xarit di nuyu famille Abdoulaat bi yëpp waaye di nuyu itam samay soxna ak sama njaboot yëpp bàyyiwuñu kenn. mais père kii sore na de Guet Ardo. waaw yow mi yow mi dëkk yow mi fa dëkk na. waaw mais lu mu fa wuti ba. déet dégeem yow mi gone yaa a jóge Guet Ardo ba ñëw fii ci Dakar. kon moom bu nee Guet Ardo tey wàcc na. waaw man maa moom Guet Ardo de. ah na moom nee na fa mu dëkk ak Guet Ardo sorianto wu. sorewul Guet Ardo nga ca Njaañ. man dem ci ndox. ma nga ca Njaañ. dégg nga mu naan Njaañ. Ah. am na lamb lamb yu daan am Njaañ. Njaañ ci yëg Njaañ daan am ay lamb yu neex. Ah. daan am waaw ñoom mën soo jóg daara jolof fa bëri ah. waaw kokki waaw kokki caamin ñëpp maa ngi nuyu ñëpp ak Colobane ak ñii bi waaw ñooñu ñëpp sama dëkk la mais foofu loo fa mais xam nga fépp foo am lu baax rek bëgg nañ fa teg suñ tànk bi fépp foo xam ne mag ñu baax ñi jaar nañ fa ñun dañuy def dañu am benn association boo xam ne yi jékki rek dem fa yàlla dogal ñu bokk ci parce que mag ñu baax moo ñu meññ hmm. kon lu mel ni kokki nga xam ne kokki ña fa jaar dañoo bari Mhm. samay doom sax jaar nañu kokki eh. d'ailleurs may nañu Cheikh Kebe bu baax eh. sama doomu nday Baye Serigne Kebe di nañu suñu papa baay sëriñ Kebe bu baax mhm. ak ñi nekk kokki moom Baye Fallou ah, bàyyiwuñu kenn ndax kokki dafa bokk ci loo xam ne nii liy dimbali astan wi xale yi di leen wan àdduna di leen jàngal ñi génne kokki ñëpp gis nga réussir am Mm-hmm. ñi génne kokk yëpp gis nga fi ñu taxaw. waaw mm-hmm. ah, ñu ngi nuyu sax ñu ngi nuyu borom original. waaw as ndaw ndukuman as ndaw ndukuman fara jaar. Mm. Serigne bu fara jaar. Mm. Cheikh Kébé fara jaar. Mm-hmm. ah yaa di dootul Abdou Khadir fara jaar. bari na ñu fa jaar ñoo xam ne ni tey ay borom barke lañ fii ci réew ñu ngi leen di dégg am xam-xam am nañu alal. macha allah yàlla na leen jig. amiin incha allah. loolu am na solo mais Fallou Ndiaye damay def benn parenthèse rek parce que sànq bi ñuy waxtaan. Euh, père mi ngi lay wax gis naa nga taxawal combat bu neex a neex ñuy dugg ci débat bi muy Mor Kankang ak Diop de. Mm-hmm. borom kalamale Mor Kankang bi combat bi ñu doon xaar mu taxaw yàgg na lan moo taxoon mu tàggoon lan moo tagaloon combat bi wala yow su bëgg-bëgg dafa nekkul woon Mor Kankang Diop de. waaw non bëgg-bëgg sax Mor Kankang Diop woon mais xam nga làmb moom. Euh, dafa am yaade woo am yaade baax. Mm-hmm. c'est-à-dire ku ne ak philosophie am mbër bu ci ne ak staff ni ñuy doxee. Mm-hmm. te des fois nga leen nungul seen ay principe bañ leen a yàkkamti bañ leen a géttan ndax comme ni nga ko waxee rek démarche bi yàggoon na trop mais li am solo rek mooy déggoo mhm. te comme Mor Kang ñoo bokk Bawol du suñu rakk du suñu lépp yaakaar naa bu ñu waxtaanee suñu biir rek pour mu sotta ko day yomb mhm. comme ñoo la wax rek jéey moo fa dem rek ah, mu nekkoon facilitateur <laughs> waaw waaw ah, kon combat bi amoon ay ay kii comme kon kon combat bi cangoon na. <laughs> waaw ah? mais nag loolu lépp boo gisee rek ñun benn la ñu on est des famille ndax bool-bool yëpp moom benn la ñu. dëgg la dëgg la. Mm. yaakaar naa bu fekkee ne ci li yoon rek amul leen lu benn promoteur bool soxla ci mburu bool mu war a jafe. Mm-hmm. mais des fois nag ay malentente day am ay ñàkk déggoo ci ay wax ci waxtaan day am. Mm-hmm. mais bi ñu waxtaanee ñi ci war a. wax ci mm-hmm. liggéey la waaw ci liggéey la bi ñu waxtaanee ñi ci war a wax ci facilité nañu ko nu mu gën a yombee. ñu réglé lépp. vraiment fexe ba finaliser lépp ak ñoom. Mhm. kon loolu sant yàlla rek. Mhm. di ci waaj. kon yaa ngi ñaar loxo kii. waaw foofu dañuy féliciter ñaari xale yi. Mor Kankan muy Diop ak Mor Kankan ndax ñoom ñaar ñëpp dañuy féliciter d'abord Fallou. Mhm. ci grandeur bi mu def. ak euh, li mu nangu ba def ko. parce que mbir mi moom damay wax ne ku ci nekk boo yokkul dangay ngay wàññi. comme moom dafa jëm ci kanam. Mm-hmm. di yokk pour muy avancer. Mm-hmm. dañ koy gën a appuyer rek jàppale ko. Mm-hmm. xam na li muy def mën na ko te bëgg na ko te xarañ na ci itam. Ah. yàlla na ko yàlla lafal cat. Mm. ba fi gars yi egg ci niveau yu mag yi mu dem ba romb ko yóbbu ci làmb ci milliard. loolu mooy suñu objectif. jàppale ko ci. pour taxawal ko parce que ku joxe cër la. ku yaru la. nit ku baax la. man daf ma déggal. ndeysaan daf ma déggal trop. incha bari na nag xale bari na lu mu génn ci xale yi. waaw bari na lu mu génn ci xale yi. kon su ba axee ne dafa bëgg moo kankang ak Diop 2. Mm-hmm. ñu ne ko waxtaanal ak Diop 2. jaar ci da joor ñu ngi koy nuyu de passage. Mm-hmm. ak ñeneen ñi ñëpp ñoom bëri su ngoog yëpp. Mm-hmm. waxtaan ak ñoom am fu ñu jaarale. waxtaan ak xale bi moom itam. mu ne amoo lu dul yéen. te ñu lamb rek lañ fi nekkal pour defar lamb. xajjantal wuñ kenn kenn. nii di nii jarbaat nii keneen nii keneen non dañuy def pour lamb neex. pour njëriñu lamb. parce que avant ñoom ñun ñu ngi woon ci làmb. parce que làmb ku ko seetaan fanweeri at xaw ngaa nekk ci làmb. dëgg la de ah waaw. te kon ñun loolu dañ ci nekk modérateur ci làmb. Mm-hmm. pour defar mu jëm ca kaw ca kanam. Mm-hmm. bu fekkee ne moom bëgg na combat bi ñu jàppale ko ci ba loolu am moom grandeur taxaw di ko wax nit. xamal li ngay defal ni ñi mel du xam lu lay defal. Mm-hmm. kon loolu moom lañ ciy félicité. yàlla na ko jig. amiin làmb du doon tëgg yàlla na bii daax.